aus billah min alsheytaan irajim bismillahi irahmani irahim la hawla wala quwata illa billahi aliyyil asim hasbuna allah wa ni'mal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak si sa sant borom may ko fan wu gudd ba lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal sëñ Tuubaa mu am ko nam ko bëggee ànd koog taalibe sëñ Tuubaa yëpp di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadar sunu borom may ko fanu gudd ak gu wér ba loo xam ne naal na ko sunu borom mata mottali ko di nuyu njabootuk sëriñ Moodu Abdul Xaadir gépp di ko jaarale ci sëriñ seex Abdou di am mbégte ak kontante di ñëw ci bërëb bu tedd bi nga xam ne bërëb bu wàccuwaay la bërëb bu barke la ci sunu waajur sunu xarit sunu lépp mooy cheikh Mahamadul Bachir moom cheikh Abdul Xaadar di amaat mbégte lool di sant yàlla cant gi nag mooy lu ñëpp bokk buñ la ci joxe ab cër danañ war ngaa doolee sant yàlla te gën sa soññaat sa bopp moom mel na mbégte moo xam ne la taalibe yëpp lañ ko bokk àndal mu bis bu tedd bis bu ñu baaxoo def fële sa Touba Mbour daa ko ànd ak taalib yëpp ren nag sunu borom defal ñu ci taw feex ju yaatoo yaatu doo xam ne murit bu ne rawatina taalib bu ne rawatina jullit bu ne war nga cee am mbégte am ci kontante te bis boobu mooy bisub lan bisub cant ak delloo njukkal Serigne Touba sunu waajur wu tedd wii muy Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdul Xaadar di ñu fa gane si muy dëppoog la 11 février incha allah fële ci Touba Mbour bis boobu nag ah ñun ñoo ko sakk woon ci suñu waajur wi ndax la tax ñu sàkku ko mooy koo xam ne sagub murit yëpp nga rawatina sagub taalibe yëpp rawatina sagub jullit ñi murit bu ne am cër ci sa ji bu la cëralee euh, nga ñëw sàkku ci moom ab bis mu nangul la ko war nga war nga war nga war nga gën a sant Serigne tuba ndax euh, cër bi ko yàlla jox ak fi mu bokk loolu rek doyoon na daanaka jërut ab yëngoom wala jërut ab da yëngookum dalam daanaka bu ko neexoon du ko jar waaye nag xëy na wax ji tax boo boo leen boo leen gisee ne wax ji xaw naa xaw naa xaw naa xaw naa xaw naa ci sax mooy mbégte xol ndax moom yàlla ñu mel noonu jëmmam buñ ko gisee rek yaakaar naa dañuy xaw a fàtte sax li ñu waxoon waaye li ci ëpp solo rek mooy appel bi li ko tax a jug mooy bis bi ñuy amal fële ca Mbour muy le 11 février loolu nag bu amee daa am nooy duggee cib dëkk ndax alquran moo ne waa atul buyuuta min abwaabihaa booy dugg ci buntu da jaar ci ca booy dugg cib dëkk da jaar ci bunt ba bunt ba nag mooy njabootug Serigne Touba ga fa nekk booy woote nag tey woo murid wala rawatina jullit yi da ngay da da ngay boole ñëpp rek kon ñi nga woo li ko dalee ci kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha sa Cheikh Mouhamadoul Mourtala ñi ngi woo taalibe yooyu yëpp ak ak jullit ñëpp di leen wax ne ah, li mu sagal sëñ Touba ci ay kàddu yu rafet yoo xam ne ni mbir mënoon na faa yàqu mu defar ko looloo tax ñu bëgg ko sant ndax sant gi tuut nañ ci moo tax ñu ne nañ woote taalibe yëpp génn rawatina tund woowu nga xam ne Malicounda fa nekk ak sali ak euh, dëkk yee ko wër yépp nga xam ne jëmmam ji ñu ñu ci ëpp dañ koy dañ koy dégg bëgg ko noonu di ko safoo te mosuñ ko teg bët ñoom ñu yàgg a sàkku ci man ci lu mel noonu man it ma ñëwaat ci moom ne ko dangay sama baay di sama xarit ma am sa sa jëmm ji ma am ci cofeel gu rëy goo xam ne nii sant la ba ñëpp xam ne am nga cërub sëñ Tuubaa loolu rekk lañ la mën a fay ndax yaakaar naa bu dee ab coona moom mii moo koy toggoo ci suñ jëmm yi ci njabootuk sëñ Tuubaa gépp kon nag lenn rek ngay mën a def ngir mu xam ne cant googu ñu koy sant sunu biir xol yi wóor nañu sëñ Tuubaa ne kenn jiw ci jëmmam ji te loolu jëmmi sëñ Modou mu sëñ Abdul Xaadir benn dana tax ñu def ko ndax fonk gum ko fonk waaye rawatu na jiital guñ ko jiital ci waa kër sëñ Tuubaa yi ci ab liggéey nga xam ne jëwriñ la ci waa kër sëñ Touba yëpp rawatina taalibe yi te ñëpp nangul ko ko nag nangu googu la ñuy bëgg taalibe yëpp ku ne xam liggéey mission bi nga xam ne suñ borom jox na ko ko mu koy liggéeyal sëñ Touba ci ay kaddu yu rafet ci lu waroon a yàqu mu koy ñaw di ko defar kon nag ku fa teew mel ne ne man teewal nga ma waaye teewal nga waa kër sëñ Abdul Xadiri rawatina waa kër sëñ Touba yëpp kon seex ya fa nekk yëpp maa ngi leen woo ci bis bi muy le 11 février ak njabootu sëñ Touba ga fa nekk rawati nag booy dugg ci buntu daa am fooy jaar booy dugg ci dëkk kon Cheikh Issa Sall ma nga xam ne ni mooy maire bi dëkk ba bis bii na nga xam ne sa bis la te gan gi nga xam ne ni mooy ñëw muy gan gu tedd gi na la wóor na yéen ñii na koy dalal ndax man euh, jur la ci man waaye nag dañoo jënd dañoo jël njureel gi jaaye ko jënd ko def def ko ak taalibe kon nag ñun ñun ñëpp ay taalibe lañ ci kanamam mu doon gan gu tedd ñëw di ñu gane si ki nga xam ne ni mooy sëriñ Maguette seen nga xam ne yaakaar naa euh, wëllëre la ci sëñ bi moom it bis bi na ngeen xam ne seenu bis la rawatina daayira ya nga xam ne nii ñoo fa nekkal waa kër sëñ Touba yëpp ñoom ñëpp nañu xam ne bis bii seenu bis la te gan gi ñëw seenu gan la lii ñu daa woote ci bisub sëriñ Touba bi nag laay woote mooy sëriñ bi dane ne woon la ko dalee ci ginnaar ba ci gileem foofu nag laay woote man nag baaxoowuma di tàmbale mbir di ca xar kenn ndax damay xam ma mbirum sëñtu Tuubaa la te dana jag ma fas yéene it bis bu ñu masa defal ci jëmmam ji ma bëgg ko woon ne ko boo egg bu eggee ca bis ba da nga xam ne sama xol bii wër na ma ci sëñ Tuubaa kenn jiituwula ci loolo loolu laa bëgg a fesal rek ci jëmmam ci kon nag kuñ naan sëriñ cu bugga it ñu ngi ko ci woo ñoom ñëpp ay taaliba yu jàmbaar lañ ca dëkk ba Euh, di leen wax ne nag lenn la ñu tàmbalee bis bi di ko tëjee mooy sëñ tubaa bu lay gane si dangay ngay jiital alquranul karim ak xasidaam yi kon nañ ko gàttandoo loolu ñaar yooyu rek doy na muy alquran ak xasida bu ko defee bu yegsee néegub yàlla ba nga xam ne ni moo nekk ca mbuur muy eh, Touba Njaareem bu sëñ bi yegsee ba dallu bu waree départ war a dem ca bërëb ba fale lay taalib bi yëpp gàttandoo ko ànd ak sañ yi dem dalale ko ca bërëb ba mu ñaanal mbooloo mi ñu yeewoo ko at ba déwén ak jàmm incha allah wax ji nag dëng gi mu dëng mooy bu ma xasee toog ci wetam daanaka damay xaw a gëlëm waaye nag nanu xam ne mbégte xol doo nga ko waral ndax taalibe sëñ Tuubaa yëpp ña ci ëpp ba ma leen ko waxee mbuur dañoo dañ koo jëlal seen bopp mel ne ku ko gëmewul tan noon noonu rek la war a demee it mooy ñàkk koo gëmee ndax moom dafa weesu yii ñuy eh, valeur yii ñuy valeur valoriser ci ci jamono ji jëmmam da ko weesu muy jamaa muy da da ëpp loolu ndax deret yi sëñ Tuubaa nekk ci moom rawatina da da deret yi mbusoo bi ci kon moom cër bi mu am da ëpp loolu kon nag lu ëpp jamaa lu ëpp or buy ñëw ci yow da ngay fexe teg ko foo xam ne nii maanaam dara du ko mën a yàq te taalibe sëñ Tuubaa it wala wala war a ci jëmmam jii xam li mu liggéey sëñ Touba ñu delloo ko njukkal murit bu ne war ngaa delloo njukkal ci jëmmam ci ndax li mu defal waa kër sëñ Touba yi ci loo xam ne du dox du ko waxe te bëri na lu lu ñuy saafara ginnaaw yàlla bu bu ca bu sa bu sa musiba amut ginnaaw yàlla jëmmam la. kon nag foofu laay wootee mooy bisub cant la bisub mbégte la maa ngi ci woo ñëpp rek. dëggal di ko ñaanal ci bis bi nga xam ne yàgg na di ko def di ko defal Serigne Touba. di ko ànd ak taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ba ren ji ko waxee rek mu yëgal moo ko te mu jot mu sàkku ci ma ñëw ci yàlla def may am gànte ba ma di ma jox ko sama kàddu yi ne ko incha allah bu àndee dogalu suñ borom. maa ñëwal sama bopp ànd ko yow comme ni mu ko waxee loolu nag day ab cër boo xam ne kuñ bokk Sëriñ Tuubaa ku rek boo ko sàkkoo ci ñun war war nañu rawatina ñoom ñii nga xam ne. di jabarug sëñ Moodu ndax sama diggante si Moodu yaakaar naa adduna sépp xam nañ ko ci cofeel gu rëy ne amoon na ko ci man ak ak fonkeel ak ak jàpp boo xam ne amul fenn fu mu yem maa ma tegoon ko fa ma tegoon jëmi sëñ xool sëñ Buxaari ma xool ci moom mu doon kilifa gu mat sëkk boo xam ne kenn mënta xeebe ci moom yoonu murit koo gisit sa fa Sëriñ Tuubaa di ko mu doon ko xam ne léppam Sëriñ Tuubaa woon Sëriñ Tuubaa la daa dund ci guddeeg bëccëg kon nag moo tax koo ci dégg muy wax ci ñoom rek loolu la sa dem maa ngi koy to wax Cheikh Mamadou Fadil Mbacké mi nga xam ne ma di ko wax ne ko ndeyam gis naa la rek moo nga ma sànni kàddu yi ndax moom la xakim ji da ko doon ci waajuram suñ moom lu mu mës rek boo ko toppee xikma lay nekk kon nag si Ismaïla ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax li tax mooy suñu laa daaw naan ab ànd yàllaay boole waaye ab ab ànd ay jikkoo koy def moom mi ne yàlla def na ba muy door a génne àdduna rek lañ tàmbaloon di ko nuróoleeg man yàgg na ba man christian bi ba suñu bu xaati sax na ko waaye juróom it xam ko xamoon loolu kon nag bu yàlla defee mu dem ba tollu fii te boo ko déggee muy wax rek sa dem ci waajuram day mel ne daa dëkkoon ak moom rek wala mu yar ko xam naa ne xamu ci moom lu mu koy sëñ Mbàkke Buso daa wax sëñ Abdu Xaadir bu fekkonte ne xamoon nga sëriñ bi dama da nga koy roy waaye nag xamu ci moom loo koy roy waaye ñoom ngi koy sant bu baax xam ne lépp lu ngeen ne rek bu ñu soñoon bu ngeen geesoo ñun ngeen di jëkk gis ndax loolu mooy liñ seq yéen te yéen itam xam ngeen loolu ba eh, xàmmewu leen sama kër yi kër si mudu ndax genn kër lay nag ñu ngi la ci ñaar bu baax ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom defal la ci ndimbal gàttal la ci tawféex te ni nga ko waxee rek eh, ndax li ëpp solo mooy li ëpp solo mooy léeg-léeg Sëriñ Tuubaa defal nga xam ko te mooy xam sa bopp xam gi sa bopp mooy xam ne bala Sëriñ Tuubaa boolee ci boppam rek la defar seen mbir àdduna ak àllaaxira kon la ci des yitte ak jom rek bu koy mottali boo amee doogu rek te wakkeelu ci sëñ bi la euh, sëñ bi daa doo wax ne sëñ Tuubaa dane ku ne ku ma topp ma dem ku ma topp ma dem boo geesoo gis mbooloo sa ginnaaw kon li ci des moo doogu ak jëm ci yoon rek te xam li ci des sëñ bi koy mottali kon ñuy ñaan ci barke sëñ Tuubaa ndam loo daa am ci bis rek yàlla nga ci am lu ko ëpp lépp mu dajee tawfiix ngërëm sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah